donc de par ma voix aussi maa ngi jaale peuple sénégalais bi ci xew-xew yu métti yi fi jot a am mhm. di ñaan yàlla mi nga xam ne moom moo yore sutura yàlla mi aar di sàmm doomi aadama yàlla nañ yàlla sàmmal boppam te aar peuple bu Sénégal salaamaaleykum wa rahmatulah waaleykum salaam mi nga ko ci yéen la ñuy dugg jarul transition mhm. bu ko defee ñu waxtaane insalubrité bi nga xamante ni moom moo lëmbee réew mi surtout si ñu période de fête yi Fatima mhm. Diop da ngay gis ne ni ñun dañuy yor mbalit sax sànni ci mbedd mi dañuy naan ndox ci sa yi sànni ci mbedd mi est-ce que tey jii ni Sénégal mën na ci génn voilà Asma moo taxoon tey euh, seen rubrique environnement indi leen comme thème insalubrité ñu xam ne ci ak lii leen jógee euh, ci tabaski leen juge te ku dégg tabaski di xam ne tabaski mooy mbalit Asma <laughs> parce que xar moom fu ñu ko rëyee fu ne rek mbalit la soble yi ñëwagul pomme de terre yi ñëwagul moo tax tey ñu dalal ki nga xamante ni contrôleur la fële ci l'UCG di Pape Thiam El Hadj Pape Thiam bu ñu ñëwee ak yow ci disposition l'UCG par rapport ak euh, tabaski bi lan la UCG ban liggéey la doon def ak historique gu UCG est-ce nañ koo xam. waaw c'est vraiment un pour moi. wax dëgg yàlla di ñëw pour euh, waxtaanee euh, euh, wàllu nettoiement particulièrement aussi ñun ci domaine bi ñu nekk muy UCG mhm. UCG nag bu ñu koy wax mooy unité de coordination de la gestion des déchets donc tey aujourd'hui yaa ngi may laaj historique gu UCG UCG mhm. ren def na cinquante six ans d'existence ci Sénégal dama wax ne UCG aussi mbubbum Baye Fall la. Mhm. mbubbum Baye Fall na couleur bu nekk nga ca biir. Mhm. morceau bu ci nekk am nga ci sa cër. donc su ma koy wax mooy UCG dafa am ci ay tur yu mu mës a jaar. tey su ma ko su ma ko doon limal damay wax Sowadib mës nga ko dégg Sowadib ICG mës na ko gérer. Mhm. Euh, euh, euh, mbalit mi IC Sowadib mës na ko gérer je peux diir que aussi tamit SIAS mës na ko gérer Euh, entente Kadakar mës na ko gérer euh, Veolia mës na ko gérer fi mu jaar dafa bëri tey ba tamit tey ci UCG donc nga laajal ma aussi tamit ci dispositif yi ñu jëloon pour tabaski bi. Mhm. avant tout d' abord ñun dañu njëkkee ci sensibilisation bi sensibiliser aussi la population dugg ci marché yi dugg tamit ci daral yi dugg ci communes yi ak quartiers yi pour sensibiliser la population. Mhm. pour wax leen leen tabaski. bis la boo xamante ne bii rek benn yoon lay am ci at mi te dafay passé donc am na ci loo xamante ne bii euh, sénégalais bi waru ko ko jaral que muy salir environnement bi mu nekk parce que ñun bu buñ ko euh, saliré ëllëg lépp lu ciy répercuté wu aussi ci suñ kaw lay dal donc UCG euh, jël na dispositif yi mu waroon a jël. Mhm. ci biir tabaski bi renforcer na les éléments renforcer na aussi tamit marché yi ak yi nga xamante mooy grande surface yi ak les quartiers donc ñu sant ci yàlla nag wax dëgg yàlla. parce que tamit li suma benn collègue di wax une mission des moyens tey aujourd'hui dañuy interpeller état du Sénégal te ne ko ñun ay digne fils du Sénégal lañu. Mhm. bi ñëpp taamoo métier bu leen neex ñun yàlla moo ñu moo ñu nattoo ñun ñu nekk ci propreté bi mhm. donc je pense que ne tey li may wax mooy les agents de la propreté ñoom ñooy première médecin du Sénégal ñoom ñooy le premiers secouristes du Sénégal parce que si c'était pas euh, les agents de la propreté tey Dakar yëpp dafay inondé ak ordure mm-hmm. donc nag ki leen sauver loolu dimbali tey ba dakaar mën a am stabilité boobu mm-hmm. je pense que ne ñooñu war na leen delloo njukkal ci réew mi mooy les agents de la propreté mooy mooy les techniciens de surface mm-hmm. donc je suis venu pour wax leen rek ah. ne leen daf ci am yoo xamante ne bii du du u kese moo ko war taxaw c'est-à-dire que dafa war a nekk benn solidarité collective que képp kuy sénégale ak foo mën a nekk ci réew mi nga xam ne ceetu réew mi yow faratala ci yow. Hmm. ngay ministre ngay président ngay kilifa diine ak koo mën a doon. Hmm. maanaam pour seetal Sénégal farata la ci bépp. Euh, sénégalais sénégalais. Hmm. donc loolu nag ci la ñuy woo ñëpp di leen wax tamit ne euh, nit day am nawle ci àddina. tey aujourd'hui bu ñu. doxalee ci ginnaaw rek en 94. Mhm. génocide bi amoon euh, euh, euh, Rwanda. Mhm. tey ak li mu causé ci ay mort nga xamante dem nañ ba économie réew ma daanu na réew ma kenn mënutul comprendre. Mhm. tey aujourd'hui Rwanda moo jël troisième pays du monde bi gën a set. man j'étais à la Mecque. man dem naa Makkatal Mukarrama. man mbalit moo ma yóbbu Makka. donc tey su ma demee Makka dem Medinatul Munawwara su ma toogee wax na leen ne Rwanda bi ma gis. moo gën a set. Euh, yenn yenn yenn ville sant da ngeen naan c'est pas vrai li leen ko may mooy volonté bi peuple bi am ànd ci ak seen i dirigeants. Mhm. nag la ñu bëgg Sénégal war koo mën a raw parce que pourquoi ñu wax ko. sànq tudd ngeen fi nitu yàlla bu màgg mhm. moom moo waxoon ne wa man yuhibuni wa man yarani fii jannatil xuldi bila buxtaani is a ni xalifatu tijaani mawhibatan min ah, ahmad al adnani kooku mooy cheikh al islam alhaji ibrahim tey Rwanda amul mawlana cheikh ibrahim mhm. tey Rwanda amul Serigne Touba. dëgg la Rwanda amul Cheikh Sidil Hadj Malick. Mhm. amuñu maam Limaamul Mahdi ñun ñu am ko pare suñu réew mel nii am na problème bi. mbir mi dafa war a nekk mérite waratu uh-huh. nekk chance. waaw El tey su ma ñëwoon ci seen méthode de travail UCG yéen nan ngeen di liggéeyee. waaw méthode bi ñaar la ba trois aspects la ñuy mhm. liggéeyee bi ci njëkk mooy sensibilisation bi. Mhm. créé nañu aussi benn cellule de veille et de sensibilisation créé nañu aussi tamit euh, loolu lu ñu tuddee mooy mooy UVS bi créé nañu aussi ay pôles yoo xamante ni mu ngi ci région ci ci ci région yi mhm. di sensibiliser ci ci marché yi ak quartier yi primo secondo mooy li tax ñu koy def mooy communication dafa war a jiitu ci lépp d'abord tey bu nit bëggee jigéen jigéen bëgg góor sax pour ñu mën a sëy communication moo koy doxal àdduna communication moo koy doxal mhm. donc UCG li mu njëkk a dox mooy communiquer ak la population sénégalaise bi ci topp yaa ma koy wax mhm. méthodologie bi utiliser pour mën a setal dëkk bi bi ci njëkk mooy collecte bi mhm. collecte bi nag ñu koy def mooy benn tasseuse yi oto yi ngeen di gis mhm. ñuy war ci ruelle yi di sonné peut-être nit ñi dañu yaakaar ne ñu ngi tànqal nit ñi mais bu ñu ko deful dëkk bi du set mhm. loolu moo waral loolu beneen bi aussi balayage bi la donc am na ci ñoo xamante ne bi ñu ngi nekk ci balayage bi am na ñu nekk ci collecte bi donc ñetti aspect yooyu rek moom mooy euh, méthode bi nga xam ne UCG jël na ko pour vraiment rendre aussi le pays propre donc loolu nag euh, bu ñu koy def aussi dañ koy def avec le cœur dañ koy def ak yéene. parce que mbalit du n'importe qui moo ci war a liggéey. ok léegi El su ma ñëwoon ci jafe-jafe yi nga xamante ni yéen a ngi koy jànkuwanteel ci seen bërëbu liggéeyukaay yan jafe-jafe ngeen am. waaw jafe-jafe yi nag bokk na ci euh, état dafa war a soutenir UCG. Mm-hmm. état rek moo am sañ-sañu fekk suñu budget mu nekk 19 milliards état réduire ko. état ñi meew ko def euh, système éducatif. ñi may ko def enseignants yi ñi may ko def médecins yi kon donc bu ñu ko defee ñun ñu muñ ko c'est parce que ñun ay patriotes la ñu ay sénégalais lañu mais si c'était d'autres cas mm. am na loo xamante ni bi réew mi dootuñu ko waxati kon état moo leen mën a jàppale waaw état parce que li may wax moo di koo xamante ne minimum da ngay collecter deux mille huit cent tonnes d'ordures par jour uniquement dans la région de Dakar kooku bu la état jàppalewul catastrophe lay jur donc ñun ñu ngi interpeller état du Sénégal beneen bi yaa ko wax ci ci pour cent des travailleurs ci location la ñu nekk ñu bëri ay màgget la ñu bëri seen i kër tas nañu tey aujourd'hui ñu ngi wax suñu ministre de tutelle Abdoulaye Seydou Sow mhm. dañ ko jox cent mille logements mhm. ñu ngi koy fàttali ne ko agent de la propreté yi mhm. ñu fu ñu dëkk dañuy luyee tey moom bu ñu ko joxee cent mille logements ñu ngi ko ci xaar mu relever un grand défi pour que aujourd'hui tey yéen yàgg ngeen dégg cité Sonatel cité Sénélec cité Nations Unies cité cité cité waaye ñu am ko pour ñu euh, la monnaie donc loolu moo nekkoon li nga xam bi gàtt na. Ah, li ma ci mënoon développé lépp dafa bëri. Ah, xam naa nag gars dinañ ma mere sax. lii nii dafay mel ni kaane. xam uh-huh. bi yëpp déglu. te ñi war euh, dinañ la déglu itam bàyyi la xel kon nag dara gàttu fi. ah def ci la. waaw xam naa moom encore dinañu ñëwaat ci beneen plateau. parce que tey am na lu bëri loo xamante ni waroon nañu mën a waxtaanee. très bien ci waxtaan nañu ci li nga xamante mooy les